ndaysaan Wassare Lamb nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte ñu ngi fii ci as wuy jàpp na ko daan na ko Orange 2 daan na Karim Orange 2 daan na Karim waaw waaw Orange 2 daan na Karim may ñu ma sax ma nuyu mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu képp kuy seetaan Wassare Lamb am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defale saa su ne mbokk ñu ngi fi ci stade Caroline Faye bu Mbour Yaxya Diop moo fi woo njiital Faata production mise bi cinq millions la toll nañ ci quart de yi nga xamante ni mooy lese yi ndeysaan lese yaa nga noonu mbokk yi arbitre bi sifflé na Emine François Gomis moo leen wan ginnaaw ak Toubacouta ndeysaan France jël na wër na ko ndomba Maadou da koy daan Toubacouta doo ci génn Franc war na la ndomba doo ci génn doo ci génn Franc war na la ndomba daan na ko waaw waaw Franc daan na Toubacouta Franc daan na ko jël na ko nar lekk na loxo wër na ko ndomba Ada wër na ko ndomba Ada Boy Baol Gora Sock Ada wër na ndomba lu mu nar daanuwul de lu nar da daanuwul de daanuwul de daanuwul de Ada Boy Baol Gora Sock daan na ko Ada daan na Gora Sock Ada daan na Gora Sock tey lamb arbitre bi sifla waat na mbokk yi Fakara moo wan di joor Famara Sarr moo leen wan càmmoñ tey lamb Adama ngi ñu ngi ci quart de finale yi poids lourd yaa ngi noonu ndaanaan ngay dem compétition bi di continuer ndeysaan ñu daan ndaanaan mu jooy ndaanaan jaay daan jéeg bég jaayu ndeysaan Famara Sarr ak Pakala ndeysaan mbokk yi Pakala moo leen wan di joor Famara xale la boo xamante ni xale bu bu dëgër la macha allah xale la boo xamante ni xale bu am jom la Famara Sarr ak Pakala pakala booy bëri xale mel ni doo ko forcer ndaysaan mbokk pakala moo leen wan di joor faamara moo leen wan càmmuñ faamara ak pakala ba tey dara amagul cey làmb faamara saar pakala faamara yóotu na loxo bi mu bañ Ndeysaan mbokk yi fi may wax ak yéen nii waxtu bi jot ci diggante Famara Sarr ak Pakala Ndeysaan mooy 23h mooy 9 mbokk yi léegi ñu dugg ci 23h compétition bi minuit la jëm mbaa une heure matin waaye lépp la lépp lu ngeen ci bëgg Wassare Lamb dina la ko jox avertir nañ. pakala avertir nañ Famara cey làmb Famara ak pakala Famara ak pakala pakala ngàdd na mu bañ Famara pakala pakala ngàddaat na ko Famara Famara daw na jël ko jël na ko Famara jël na Pakala waaye Pakala di joor bi la bëgg jàpp waaye jàpput Famara nga koy forcer Pakala defal ndànk Famara nga koy forcer Pakala génne na loxo ba lu mu xar jéppee suruxal na ko Pakala jàpp na ci poqataanu ngemb daan na Famara ndaysaan Pakala daan na Franc Gomis ma nga ci compétition ba moom Franc Adama jëla mbokk yi ci Franc ak Boy Lour Franc moo leen féete càmmoñ ndaysaan mooy Émine François Gomis xam ngeen ko ñett compétition moo am mu jël ñaari tey mooy troisième sortie ci lutte simple bi ndaysaan Franc daw nañ jël ko ndeysaan booy luur ak franc franc lu mu nar sol na ko jàpp na ci ngemb la franc lu mu bëgg lan bëgg jàpp na di bañ booy luur jàpp franc jàpp na bañ na booy luur jàpp booy luur mot na franc bañ na gën na koo takk da jóg da jóg waaye booy luur bañ na franc añ na ko doon na ko ci suuf doole doole doole doole pakalay fu yóbbu booy bawal tibb na tànk pakalay booy bawal tibb na tànk pakalay booy tibb na tànk pakalay booy bawali cey dox ci diggante pakala ak booy bawal bu leen jaawale mbokk yi Boy moo la woon ginnaaw waaye pakala ngeen jàkkaar lool Boy Baol bi compétition bi commencé ba tey képp koo xamante ni poids lourd la fii moom moo la éliminé moom Boy Baol moo daan ndaysaan assurance bu mbuur Boy moo daan selemele Boy Baol tey moo daanaat góor soog quatrième combat ba ngi nii mu am pakala kon booy bawol tey mën naa ne compétition bi saa yu ñu lay dal. arbitre bi nee kaay leen ci digg géew bi kaay leen fii ndaysaan booy bawol ak pakala ndaysaan ña ngay xoolante ci bët mbokk yi bu leen jaawale ñu ngi fii ci stade. Caroline Faye bu Mbour Yaxya Diop Faata production moo fi woo mise bi juróomi million la ndaysaan cey làmb oh Pakala Boy Bawol tegante nañ bopp Pakala fàqat na ko Boy Bawol bañ na Boy Bawol bañ na Pakala da koo bëggoon fàqat wër ko ndomba ndaysaan pakala da koo bëggoon fàqat war ko ndomba ña ngay xoolante ci bët ba tey ndaysaan ña ngay xoolante ci bët ba tey pakala booy bawal cey làmb pakala booy bawal pakala booy bawal ndaysaan pakala booy bawal ñu ngay lewaatoo ña ci bët mbokk pakala bu mbuur moo leen woon ginnaaw aada booy bawal moom ngeen jàkkaar lool tey làmb xale la boo xamante ni compétition bi bi mu xewee ndakaaru ba tey bu am mu ngi participer moom booy bawal waaye jëlagu ko mu koy jël ci àll bi amagul chance jël ko tey nag éliminé ñoo xamante ni ay favori lañu woon tay ci compétition bi waaye dox na ci diggante mook Pakala Ada booy Baol Pakala ndaysaan Ada Boy Baol Pakala sama ñaari jigéen ñi ma leen di nuyu Buri Gueye ak code bu axu axu ñebe ndaysaan da doon ngénte tay waaye liggéey rek moo tax mënuñoo ñëw Papa Gueye Gueye Ndiora ma lay ñaanal jooju yàlla na dund ta barkeel yaag Ahmadan Cissé ba tay Pakala ak Boy Bawal mbokk ñu ngi ci làmb ji Pakala moo leen wan ginnaaw Boy Bawal ngeen jàkkaar lool cey làmb Pakala Boy Bawal Pakala Boy Bawal Pakala Boy Bawol Pakala Boy Bawol Pakala Boy Bawol ñu ngay lewaatoo ba tey Boy Baol jël na tànk ba daw na jël tànk ba waaye Pakala jàpp na ngemb Boy Baol ndengeñ na ko Boy Baol Pakala cey làmb Boy Baol Pakala Boy Baol zongale na ko zongale na ko daan na ko Boy Baol daan na Pakala hee Boy Bawol lu mu nar tey Boy Bawol lu mu nar tey eh Bawol tiit naa ci yow ay Bawol tey tiit naa ci moom xale bi éliminé na Sele Mele éliminé na Bakala bu Mbuur éliminé na Goro Sok teg na ci Bakala éliminé na Assurance bu Mbuur de sifflet dox ci diggante Tony numéro 2 ak Ada Boy Bawal ndaysaan Tony moo ngemboo ngembulu zone li Ada Boy Bawal moo ngemboo ngembul Lagos li mbokk yi wàllu Bas ngay am pakala pakala junior pakala junior ak Emine François Gomis mbokk yi Emine François Gomis moom ngeen jàkkaar lool Pakala Junior wàllu yooyu nga fa am Tony ak ki nga xamante ni mooy Boy Bawol Boy Bawol Tony Boy Bawol Tony ña ngay xoolante wala ña ngay leewaatoo mbokk yi samedi 18 janvier 2020 stade Caroline Faye bu Mbour Yaxya Diop moo fi woo njiital Faata production. demi-finale yi ñu toll noonu dox ci diggante Ndaysaan Boy Baol ak Tony wàllu wee Ndaysaan Emine François Gomis ak Pakala Junior Ndaysaan cey làmb Boy Baol ak Tony ña nga ca ba tey Boy Baol Tony ña ngay lewaatoo ndeysaan Franc ak Pakala Pakala numéro 2 ak Franc Franc ngi dox ci Franc ngi dox ci kaw Pakala lu Franc nar Franc ngi dox ci kawam da bëgg jàpp Pakala bu doon maa yow doo yombal jàppale Pakala numéro 2 ak Franc macha allah Tony jël Boy Bawol Tony jël na Boy Bawol mbot na ko jël na Boy Bawol Tony fi mu ne sori Tony fi la yegg sori na Tony Boy Baol Boy Baol Tony Boy Baol Tony Boy Baol hee Boy Baol Tony ña ngay jaxandalu Boy Baol mbot na ko lu mu nar Boy Baol Tony Boy Baol wër na ko ndomba Boy Baol wër na ko ndomba Boy Baol wër Boy Baol dem na final Boy Baol dem na final Fara ak hee Boy Baol Boy Baol def nga lu rëy ndeysaan cey làmb oh sëñ Bas yaa ngi am Emine Gomis ak Pakala numéro 2 ndeysaan cey làmb oh Lamine François Gomis ak Pakala bas da koy am foofu ndaysaan Pakala numéro 2 Pakala numéro 2 ndaysaan avertissement Pakala numéro 2 jël na benn Franc dox ci koom Pakala numéro 2 ak Franc ba ñu ngi ci demi-finale bi Boy Baol qualifié Ada Boy Baol def na lu rëy oh lamba ngi noonu ndaysaan dem na terrain gaal gi ñàkk dem na adresse Senghor ñàkk dem na stade Diop Iba Mar Diop dem na arène nationale ñàkk tey ñëw na finaalu moom Ada Boy Baol lamb amul secret nangu rek nangu daa jël cëru bañ ndaysaan Franc mu ngi dox ci koom mu ngi dox ci kaw pakala numéro 2 Franc lu mu nar wala pakala lu mu Franc Franc dox na ko génnee na ko saaku yi pakala boo yéexee Franc gagné par décision arbitrale avertissement yi bari na am nga ñaar bul fàtte taxawal bëre sa combat Franc doy dox ci koom Franc doy dox ci koom Franc doy dox ci koom waaw dox ci koom ngàdd na ko jege nga saaku yi da ngay génnaat da ngay génnaat trois avertissement disqualifié nañ ko Franc gagné na Franc gën qualifié fekk naa la arène nationale fekk naa la stade Jom Iba Mar nga final waat fii ci loo yëg. waaw sant rek yàlla ma yàlla may ndam rek dañuy jàng bëri rek waaw. Franc lan mooy sa secret. ah liggéey rek ànd ak sama grand rek di liggéey. xam nga ki nga am final Ada Boy Baol. waaw champion la ndaan la fi képp fi tax rek champion nga waaw xëy lii moo gën quoi lii la yàlla def. bonne chance tey gaa noonu Ada Boy Baol nga finaalu loo yëg baa jili kontaan na di sant yàlla sant yàlla rek tey ñi nga xamante ne ay favori la woon yëpp ci poule bi yow yaa leen éliminé assurance bu mbuur pakala selemele Goro Sock tey loo yëg waa sant yàlla rek di kontaan di xam ay xale lañ defaguñ dara ci laam dañuy jéem rek xam nga di ñaan yàlla tamit mu joon ay final final daal incha allah yaa ba jëlee. bii mooy ci ci ci ci ci dëkk bi. waa ci mbuur benn demi finale laa fi amoon daaw waaw mais sama première finale waa ci la mais mooy bi si Mbour wax dëgg yàlla. <laughs> ñu éliminé la quart de finale Dakar fekk ma fa ñu éliminé demi finale fekk ma fa compétition yi saa yoo demee di nga nar. waa mais compétition rek man loolu laa xam man làmb laa xam mënu maa xëy toog. parce que ñi may àndal man xëyuma gontu ma dañ may jox ndékk ñi ma jox añ ñi ma jox reer ma defuma dara sama métier làmb moo tax tey ma bàyyi ko toog kon foog ma foog ma suivre làmb daal fu ko fa. bonne chance. jaayëf bàyyi ci cey làmb. ndeysaan xale yi ñoo finaalu final bi mënut a yomb Siyaa noonu ngembo ngemb lu weex li Siyaa jël na ko hey Siaka ak Orange 2 ndeysaan cey lamb Orange 2 Siaka Siaka Orange 2 cey lamb Siaka Orange 2 ña ngay leewaatoo ba tey Ndeysaan. bi yoon daa mel ni dañoo bëgg combat bi gaaw. Ndeysaan dañoo bëgg combat bi gaaw. Orange 2 ak Siaka. ña nga ca jël na tànk ba. Siaka jël na tànk ba. won na ko ndomba. Siaka daanu na. Orange 2 daan na Siaka. oh Siaka daanu ko jël bu la daanu nga jël bu met Boy Baol dugg na Boy Baol dugg na nee na ko tibbal ci suuf si jox ma tibb na ci suuf si jox Boy Baol def na ci ngemb la mbokk yi final bee ci des ci digg jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb gis nga maa ngi toog tey sama consultant sëñ Bas laa jël def ko comme consultant borom mbég-mbég taar bi moo baax boo ko rek sëñ Bas tey ñu ñëw ci compétition bi. gis nga parcours bi nga xamante ne Ada Boy Baol moom la def ak Emine François Gomis loo mu ci mën a waaw Baye Djili nuyu nañ mbokki internet yi ñuy seetaan ci wasaare lamb di jaajëfal ñëpp di jaajëfal aussi Faata production ci journée bu réussir bi ndax gis nga amoon nañ njàqare biñ ne mbuur lañ jëm ci stade municipal ba ñu ci bëri ñu ngi doon xalaat ba xam ndax dana feesam déet mais bu ñu fàtte ne euh, Joal ci ci mbuur la bokk bu ñu fàtte donc du ma ne sous région bi sax mais ñi nekk ci alentour yëpp dañuy ñëw wàlliyaan si comme ni ma ko waxee woon ci bëccëg mais tey gis nañ làmb ju neex mais baa jili est-ce que xam nga ne parcelle dafa xew. parcelle dafa xew ndax tur yi fi am yëpp compétition yi fi am yëpp presque ñoom ñoo ko jël. mais c'est normal. lu tax loolu. parce que roi des arènes mu nga parcelle. roi des arènes bu demee parcelle c'est normal làmb ñibbi parcelle xoolal tournoi yi fi ñëw depuis ñu commencé ba léegi nii. amul tournoi bu waa parcelle di dem te jëluñu ko rawatina millions yu bari yi 10 millions yo franc la woon ak Cheikh Tidiane ñaa ñaari mbëri parcelle nga dem ci cinq million ya keroog ca Iba Mar Diop booy fay la woon ak Émile François Gomis ba tey ñaari parcelle tey ci 3 millions yi fii ci Caroline fay ba léegi ñaari parcelle la Aada Boy Bawal ak Émile François Gomis te boo xoolee parcours bi ñuy def. bu ñu bu ñu laalantewut seen biir pour nga dindi leen day jafe dañuy dem ba ca cappaandaw ga ñuy soog a tase parce que boo xoolee Parcelles Assainies bi bokk na ci gox yi ëpp ay mbër sans frappe loolu moo tax te mbër yëpp mën a bëre nag mbër ya fa nekk yëpp mën a bëre boo fa tuddee Gora sook tudd Obali tudd tey Émile François Gomis mi nga xam ne boobaak léegi mu ngi def ay ay preuve tudd Aada Boy Bawol tudd Cheikh Tidiane Niang presque tudd Boy Faye te des na des na xale yu ndaw yi ñëw. champion yaa nga fa mais tey li ma jaaxal mooy Ada Boy Baol dafa décider dañ na Pim ñu jox ko assurance bu mbuur mu daan ko ñu ne déetawaay mu am selemele daan ko ñu ne déetawaay mu am góor a soog daan ko ñu ne déetawaay mu am pakale bu mbuur daan ko tey kon ñi nga yaakaaroon ni ñoom ñëpp ñooy ay favori Ada Boy Baol moo leen éliminé. xam nga dafa nekk mbër moo xamante ne nii li nekk ci moom ci technicité. mbër yi mënuñu koo xam tant que jàppante ak moom parce que niveau bi ñu koy xoolee mooy niveau bi mu toll ci lutte avec frappe bi niveau boobu boo ko xoolee aada booy bawol mu trompé la parce que champion yi muy daan tey lamb boolewu leen ci lutte avec frappe dañ koo rawee lu bëree baree bari mais technicité bi nekk ci moom moo tax ku mu jàpp fii nga xam ne jàppante nga ak mbër te nag nañu dem ba ci kanam Ada Boy Bawol fii mu teg tànkam nii dana doon champion bi Franc nekk dana doon champion bi booy Faye nekk dana doon champion bi Reug Reug nekk parce que mbëru mbapat la boo xamante nii xale la dese na lu bëree baree bëri ci yaramam lu war a màgg ci doole ci xel aussi loo xamante nii war naa ñëw donc mbër la moo xam ne bu ñu ko suivre ci ñaari saison dana dooni li Franc doon dana dooni li li li Reug Reug doon. Emine Gomis yi ci jot a am yëpp moom moo ko jël lan am na entourage boo xamante ne nii ci làmb loolu rek bénéfice la ngay contact ak ku ci mel ni Yékini Senior di contact ak ku ci mel ni euh, Modou Lo Roi. à suivre combat baa ngay daw kaay. jërë ngeen jëf mbokk yi samedi 18 janvier 2020 stade Caroline Faye bu Mbour Faata production moo ñu woo ci njiital ba Yaxya Diop Yékini Ada Boy Baol Emine François Gomis mbokk yi moo leen féete ndijoor Ada Boy Baol moo leen féete càmmoñ. arbitre bi sifflé na ña ngay leewaatoo sëñ Bas wala jàppante nañ. ñoom ñaar diggante Émile François Gomis ak Aada Boy Bawol ñaari mbër yoo xamante ni seen parcours metti woon na mais finalement ñu ngi am final ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk gàcce ngaalaama instant bi dama naan amul kenn ku ci perte ndax li nga diggee woon ak ñi la gunge woon ñëpp def nga ko. instant bii nii ñu nga ca cappaandaw ga bàyyi jili diggante Émile François Gomis ak ki nga xam ne mooy Aada Boy Bawol Aada jëli na ko. Ada Boy Baol jëli na Emine François Gomis ndeysaan Franc bi compétition yi commencé ba tey bi mooy troisième sortem moo jël deux yi mu final waat Ada Boy Baol jël na tànk ba Franc lu mu nar bañ na Ada bañ na Ada bañ na Franc sol na ko sol na ko dëpp naax da koy war ndomba kumpeleel nii la def yanu na ko door ci suuf Emile François jël na jëlaat na jëlati na ko yóbbooti na xaalis ba oh Emile Franc Joal Gomis Franc dafa bëgg million jiili Franc dafa bëgg million dafa bëgg million buñ fàtte ne fukki million ko tax a jóge États-Unis ñëw Sénégal jël na ko tegaat ci cinq teg ci yeneen trois mais xoolal deux millions cinq cent yi ca sum production suba la est-ce que Franc dana dem dina ñëw million rek ko tax a jóg en tout cas jóge na ca kaw mu ngi wàcc ci suuf 10 la jóge dal ci 5 tey mu jël dal ci 3 suba 2,50 la franc bu ñëwee caafu mbëri. mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo kon sëñ Bass ñu jël suñuy dëbës bés te xam ni bés dina ñëw mbokk yi noonu lañ leen di félicité fii ci stade Caroline Faye bu ya Yaxya Diop Yékini Fatou production moo fi organisé woon kii di Emine François Gomis moo ko jëloon. ma seqoo ceeg sama doomu day sëñ Bas borom mbéeg meeg mi yaa baax yaa gore. yaa ma gën a baax yaa ma gën a gore baay jiili ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci yéen ñiy commentaire ci suuf yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg ñu seet ci seen i mbër te egsee guñu ci ñoom xam ne ne wàññi la rek bu tàmbalee ci benn ca kaw la ñu jëm dañ naan benn ne ñaar ne ñett ku ñu ñëwagul sa kër xamal ne danañ fëgg sa buntu kër danañ seet si sa champion ndax xeebuñu kenn ñëpp lañ fi nekkal baay njaaxaanaay rek la ñuy tëdd mu ngi noonu mbër ya ñu tax a ñëw gis nga wasaare lamb bu làmb amul dañuy lem suñuy kaaki dem nelaw yi lamb lañ fi nekkal ku nekk ci làmb ñu ngi ci yow ngay promoteur ngay manager ngay mbër képp koo mën di nekk te yëngu ci làmb même boo nekkee simple supporter rek jiili boo ñu soxlaa ñu ñëw seet si la xanaa neex na. neex na waaw kon wasaana. jërëjëf mbokk yi